alhamdulilah tey jii nag mooy bis bu njëkk ci sunu programme annuel bi ndax diiru ñu ñëw fi bi mooy juróomeelu yoon ñuy amal programme par at tey nag ñu waxtaan ak cheikh bi dontalee xaw na jafe waaye ba mu nangul ñu jazahullahu xayran tànnoon bi su tey bii ci alqalbu salim euh, kayit bi ma yor ni dafa dem ba at mi di jeex Oustaz Njogu Sàmb mi ngi ci Oustaz Niang Mbaye mi ngi ci docteur Moustapha Ali mi ngi ci ba mujj ba mooy Oustaz Moustapha Sarr loolu par ñaar bu nekk dañu am yéene di amal bu mel nii incha allah mu nekk minbar boo xam ni day jariñ julli kon loolu rek la doon ubbee di jox Oustaz Omar Sall moom mooy présenté cheikh bii def waxtaan bi incha allah ñu tàmbali waxtaan bi jazakumullahu xayr Oustaz Omar Diallo ngeen baal fàtte naay wax euh, li ñu ma yóbbante mooy borom téléphone yi bu mënee dem ci haut-parleur yi ndax day faral di riir ci kii bi alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam na nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ginnaaw bi di sant yàlla julli ci nabi bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp seen jub ba keroog ba stéj gannaaw loolu euh, waxtu wi am na lu ci xaw a dem daanaka ñu ci seen kër jëmi li ñuy def rek mooy dugg ci thème bi mu baaxar ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu wax ne waxtu yi am na lu ci xaw a dem ba tax na dañuy dugg rek itam bi mubaasara li ñu war a waxtaan yi mooy cër bi gën am solo ci doomu aadama muy xolu doomu aadama tam bi nekk alqalbu salim simaatuhu simaatuhu wa athaaru xol boo xam ni dafa mucc muy xol bu mucc boobu yàlla di wax ci alquran illa man atallah bi qalbin salim melokaanam wala ay mandargaam niñ koy xamee waaye jeexintal yi nga xam ni moom la mën a amal borom jeexintal yi nga xam ne euh, dana ko def kon thème bi ci loolu lay loolu lay loolu ci loolu lay ci loolu lay tënku su ko defee bu di ak si taaral beneen bi dañuy ñaan mbokk ñaan ko fekk nañu ko wala ñu jàppale ci bëri na ñuy ay waxtaan wala ay conférence yoo xam ne teewuñ ko sax waaye bu demee ba di ko déglu duñ ci mën a jëriñ ñu ci mën a jëriñoo ndax téléphone yi sore téléphone yi sore ci biir waxtaan beneen bi téléphone yi nekk taabal bi ñu enregistré borom teg ko def ko silence téléphone bi jékki-jékki daal di sore léeg-léeg xam ne lii nga koy def am ku nekk feneen mu teg ko ci taabal ji foofu ci dégg ñu dem ba yàgg réseau bi dagg téléphone bi coupé mu woote waat ci biir waxtaan bi fekk mi ngi ci taabal bi mu ngi ci wér parle hmm? bi fédération yaakaar naa ne yooyu wax dëgg yàlla fu nekk place bu sori boo ko déglu rek mën na wut beneen mooy su loolu jàppandal euh, mu xaar bu jàllee mu xam ne lu leer la mu wut kaset ba wala ñeneen ñu ko mën a dégloo daal koy déglu waaye sóoraale intérêt moom ba yàq intérêt moom la loolu jàpp li ma dafa lay xam ne jàpp nañ ci baax a baax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 di leen di ñaanal di ñaanal sunu bopp tawfiq di ndokkeel mbokk yi ci jàkka ji ak liggéey bi nga xam ne itam ñu ngi ko fi liggéey xëy na teewunu fi booba ak léegi waaye noo ngi itam lu bare bari ci loo xam ne mu ngi fi jàll di ñaanal borom bi tabaraka wa taala mu dolli leen tawfiq te dolli leen sabaat muy sax ci liggéey boobu te jariñ leen ci lépp loo xam ne defees na ko fi it mu nangu ko te ful ko ginnaaw waxtu wi dafa gàtt te xam ngeen ne bunt bi ñuy waxtaanee xol bi xolu waxtaan wi ci boppam mooy xol kon doon na loo xam ne lu rëy rëy la ndax daanaka mooy lépp alqalbu salim simaatuhu wa athaaru séddale nañ bunt boobu ñeenti tomb yoo xam ne benn bu nekk danañ ci laal bi ci jëkk mooy xaqiqatul qalbi salim xol bu mucc mooy lan définition bi mooy lan ñaareel ba simaatul qalbi salim màndarga yi nga xam ne ci la ñuy xame ne xol bi mucc na ñetteel ba assabilu ila salaamati alqalb yoon wi nga xam ne bu ca nit ka jaaree xolom dana mën a nekk xol bu mucc ñu mujjee aathaarul qalbi saliim muy jeexit yi nga xam ne xol bu mucc da koy bàyyi ca boroom nga xam ne boo seetloo nit ka mu mel noonu daal boo demul ci xolam it mën nga koo seedeel ne kii day am nga yaakaar ci ne xolom mucc na kon ñi tàmbalee rek ci bu njëkk bi muy xaqiqatu alqalbu salim alqalbu salim rot na ci alquranul karim ñaari yoon benn bi sunu sunu borom tabaraka wa fi lay waxe ne yowma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim aaye boobu dafay wax ne bisa ngi ñëw ci kanam nit ki dara mënu koo jariñ lu dul mu indaale xol bu sell fa sunu borom tabaraka wa taala du alal du njaboot du leneen beneen ba mooy fa muy waxe tabaraka wa taala ne id jaa rabbahu bi qalbin salim ca ibrahima alayhi salaam lay wax sunu boroom moom lay seedeel ne moom day wuy si na boroomam fekk xol bu mucc la indaale defe naa ne loolu Ibrahima am lu rëy a rëy la waaye ku jàng histoire am itam nag fa jaar ak ku ak fa jaar ci tawxiid du la jaaxal su sunu borom tabaraka wa taala ci boppam waxee ne Ibrahima indaale na xol bu mucc salim nag <coughs> buñ ko waxee su fekkoon ne dañ koy firi rek ci kàllaama mooy bépp xol boo xam ne mucc na. ci ayib walla feebar kooku dañuy wax ne xol bu mucc la su nit ki demoon cib docteur ñu analyser ko seetal ko ab xolam biñ noppee ñu ne ko ah, yow de sa xol amul benn feebar loolu ci wàllu kàllaama dañuy wax ne loolu xol bu mucc la bu dee ci arab ñu ne loolu bu qalbun salim waaye loolu nag fekk dafa aju ci xolub lu jëm ci matière xol bi nga xam ne moom lañuy wax ci wàllu sharia nag gën naa xóot boobu xol moo tax asalafu saalix kenn ku ci nekk lu bari ci ñoom def na benn xaddu boppam muy définition boppam boo xam ne pour xamle ci alqalbu salim mooy lan ñu tàmbale ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nee na huwa alqalbu alxay yashhadu an laa ilaha allah abdullah ibnu abbas nee na alqalbu muy xol bu mucc moo di xol buy dund boo xam ne nangu na ne amul benn buur bu yeyoo dara ci jaamu ku dul sunu borom tabaraka wa taala ki bind mujahid bokk ci taabi'un ya nee na huwa alladi la shakka fiihi nee na mooy xol boo xam ne sikki sàkka laalu ko fen qataada rahimahum llahu jamian nee na mooy alqalbu salimu min ashirk nee mooy boo xam ne dafa mucc ci bokkaale ibnu zeyd noona la ko waxe waaye mu dolli ca ne fa amma dunubu fa laysa yaslamu minha ahad nee na liñ jublu ci xol bu mucc mooy bu mucc ci bokkaale waaye nee na bàkkaar moom doomu aadama ji mënu caa mucc imaam bu ñuy wax addaxaak mu ne huwa alxaalis nee na mooy xol bu sell boo xam ne benn ayib laalu ko muhammad ibnu sirin rahimahullah nee na alladi yaclamu anna allaha xaq wa anna saacata aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yabcasu man fi lqubuur nee na xol bu mucc mooy boo xam ne nangu na ne yàlla dëgg la nangu na ne àdduna jiinu nekk day dem ba jenn jamono mu jekki-jekki jeex nangu na ne bu jeexee yit nit ñi dañuy dekkiwaat kenn ku ne ñu fay la la nga jëfoon imaam bu ñu wax saïd ibn al musayib nee na huwa alqalbu saxiix wa huwa qalbu almumin li anna qalba alkaafiri walmunaafiq marid qaala taala fi wasfi almunaafiqin fi qulubihim marad imaam ibnu musayib rahimahullah nee na mooy xol bu wér buñ nee xol bu mucc nee na mooy xol bu wér xol bu wér nee na buñ ko waxee mooy xolu ka gëm yàlla ndax kat xolub yéefar ak xolu naafiq nee na yooyu xol dañoo feebar nee na noonu sax la ko sunu borom tabaraka wa taala waxee ci alquran melal naafiq yi ne fii qulubihim marad nee na seeni xol dañoo wopp abu osmaan naysaburi muy imam bu mag nee na huwa alqalbu alxaali min albida almutmainu ila sunna nee mooy xol set wecc ci lépp luy niru bidaa waaye xol bu wéeru ak wéeru gu mat sëkk ci sunna al imaamu tabari rahimahullah nee na al muraadu min al qalbi salim salaamatu al qalbi min al shakki fi tawxidillah wal baas baad al mamaat nee na mooy xol bi mucc ci sikki sàkk ci lenn lu aju ci wàllu tawxid mucc itam ci sikki sàkk ci lépp lu aju ci lay xew gannaaw bu doomu aadama faato ibnu ashur bi boroom xam-xam bu mag moom it ci tafsirul quran nee na almuraadu min alqalbi salim alxuluusu min aqaidi alshirki mimma yarjiu ila maana zakai nafsiy nee na mooy xol boo xam ne sell na ci bépp pas-pas boo xam ne pas-pasu bokkaale la waaye nee na kon dañ ciy dégg ne alqalbu salim dafay jëm ci wàllu tazkiyatu nafs muy bakkan bi nan lañ koy def ba mën a sel ba nekk bakkan boo xam ne bu mucc ci ay ayib la الشيخ السعدي رحمه الله من المراد من القلب السليم القلب الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب نينا موي خول بو خامني mucc na ci bokkaale waaye mucc na ci sikki sàkka mucc na ci bëgg musiba aw ay mucc na itam ci def biddaa ba noppi nuur ca doo nangoo tuub wala def bàkkaar ba noppi nuur ca doo nangoo tuub yooyu définition yépp buñ ko xoolee ñoo bokk lenn lu ñuy wax su ma ci dee jaar kenn ku nekk ma wax li nga wax te doyloowuma ci kenn rek li ma ci jublu mooy ñi xam ne ñi koy definiir ñépp ñoo bokk lenn lu ñuy wax kooku benn la ñaareel bi mooy ñi xam yitte joo xam ne asalafu saalix jox nañ ko alqalbu salim ndax kat dama jukki lenn ci ñi nga xam ne xamle nañ alqalbu salim liñ ci jublu tànn ca imaam yu mag waaye des nañu bare bari ñoo xam ne kenn ku ne taxaw nga ci baat boobu ngir xool ba xam lan lañ ci jublu kon su fekkoon ne dañ ko bëgg a définir ci bu gàtt wutal ko benn taarif dañuy wax ne alqalbu salim huwa alqalbu alladi salima min kulli aafatin tubiduhu an illah tubiduhu an illah xol boo xam ne mucc na ci bépp gàkk bu koy soril yàlla loolu mooy xol bu mucc moo tax alimam ibnu alqayim rahimahullah dafa boole daanaka yooyu jàll yépp ci benn définition boo xam ne xaw naa gudd waaye danaa ko tudd nee na huwa alladi saliba min ashirk mucc na ci bokkaale wal xilli aku mbañeel koo xam ne teguwut fenn wal xiqdi akuk noonoo wal xasadi ak kiñaan wal suxi akuk nay wal kibri akuk rëy wa xubbi dunia ak bëgg àdduna war riasati ak bëgg njiit nee na wa salima min kulli shubhatin tuaaridu xabarahu mu mucc ci bépp lënt boo xam ne dafay jooyoo ak xabaar bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala muy xabaarub alquran wala sunna wa min kulli shahwatin tuaaridu amrahu nee na ak bépp bak bànneexu bakkan boo xam ne dafay jooyoo ak la sunu borom digle mu teg ca ne wa salima min kulli iradatin tuzaaximu muraada mu mucc ci bépp bëggeel bëggeelu bakkan boo xam ne dafay juuyoo ak la sunu borom tabaraka wa taala bëgg ci ab jaamam wa salima min kulli qaatiin yaqtau an illah nee na mu mucc ci lépp loo xam ne day dog nit ki ci mu mën a def li sunu borom tabaraka wa taala bëgg ci moom mu teg ci moom ibnul qayim mu ne wa lidalika ishtaddat xaajatu alabdi ila bal daruratuhu ila an yasala allah an yahdiyahu sirata almustaqim nee na lii moo tax jaam bi aajowoo fu mu toll fu nekk di ñaan boroomam mu teg ko ci sirata almustaqim mu ne fa laysa alabdu axwaja minhu ila hadihi daawa wa laysa shay'un anfaa lahu minha nee na amut lenn loo xam ne jaam bi aajowoo na ko ci ak ñaan sunu borom di ko ko may lu mel ne aajowoo gim aajowoo ñaan sun borom tabaraka wa taala teg ko ci siraatul mustaqim nee na it amut leneen lu ko gën a amal njariñ ci mu tegu ci siraatul mustaqim ndax su ko defee loolu li muy firi kon mooy ab xolam mucc na defe naa ne kon danan daal di xam ne xol bu mucc mooy bi nga xam ne mucc na ci bépp gàkk boo xam ne dafay dox digganteem ak bëgg-bëggu boroomam daf koy soril yàlla koo koy tomb bu njëkk bi ñaareel bi nag mooy màndarga yi xol bi nga xam ne dafa mucc lan moo di ay màndargaam luñ koy xame alqalbu alxaali an shirki billahi tabaraka wa la ci jëkk mooy xol ba na mucc ci bokkaale xol bi nga xam ne ak jokkaloom ci tawxiid àgg na ci boroomam tabaraka wa la wékk mbiram gëm gëm gu wér ci ruboobiya sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne gëm na ne mooy ar rab mooy bind te du tàggu kenn mooy juddul suy juddu te du tàggu kenn mooy wërsëgal te du tàggu kenn bu woppee mooy woppal te du tàggoo bu wér di am mooy wéral te du tàggoo bu faatu di am mooy faatul te du tàggoo ak yu demee noonu nga gëm ko bu wér gëm itam ne moom mi def loolu te tàgg te du tàggu kenn te kenn mënta soppi dara ci nammeelam kooku rek moo yeyoo nit ki di ko jaama ci sunu borom moom sunu borom tabaraka te it yor na ay melokaanam yu sell yu rafet yoo xam ne bépp bu ci melal boppam mu nekk ci alxuraan wala ci sunna daf ko war a gëm-gëmin wu sell saxal ko saxin wu sell dund ko itam ci ay cëram dundin woo xam ne wu sell la kon daal xol lay doon boo xam ne bu laab lay doon ci lépp loo xam ne luy nuru bokkaale la waaye bu ñuy sol ba mu fees dell la itam ak tawxiid ak lépp loo xam ne tawxiid laaj na ko ci ab jaam koo koy tomb bu njëkk bi ci mandargay ne xol bi mucc na ñaareel ba moo di al ixlaasu al kaamil fi ubudiyatihi lillah tabaraka wa taala moo di jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla mu ànd akuk sel ca bëgg-bëggeelam maanaam jubloom ak yéeneem ci jaamu yàlla lim ci jublu mooy am ngërëmal sunu borom tabaraka wa su amee ngërëmal sunu borom xam na la cay tegu mooy mucc ci sawara ak tàbbi àjjana loolu nekk jubluwaayam ci xolam amut beneen jubluwaay bu muy jublu li muy bëgg noonu la koy bëgge bëgg sunu borom tabaraka wa taala mbëggeel goo xam ne xam lim ko defal te kenn mënu ko ko woon a defal xam li nga xam ne bu jubee loolu la koy faye te kenn mënu ko ko woon a faye loolu sax ci xolam boobu wakiir lu gu mat sëkk goo xam ne xam na ne kenn mënu koo musal ku dul boroomam saa bu dellu ci moom ci wàllu xolam jàqu dellu xol nag dafa doon loo xam ne lu rëy la ndax léeg nit ñi danañ feeñ ci kaw nga jàpp ne nituk tawxiid la waaye bu ko dara bettee rek ci xamee xol ba fan la nekk ndax làmmiñ wi léeg-léeg mu feeñal ko léeg-léeg mu tiit rek tudd leneen lu dul yàlla fakkastalu wala oto ba kërëwe na wala lu rëy xew na rek mu jekki-jekki tudd leneen wala keneen ku lu sunu borom tabaraka wa taala booba làmmiñ waa ngi koy feeñal ndax am na leneen lu nekk ci biir xol ba su ko defee xol ba sunu borom tabaraka wa taala nekk saabu bu làmmiñ wa di wax la muy wax day wane la ca biir su tiitoon sax ci ay nelaw nga xam ne dafa doon gént ba mu yàgg mu tiit rek kàddu ga muy jëkk wax alhamdulilah wala subhanallah wala luy wane ne kii ku gëm sunu borom tabaraka wa taala la xol boobu nag dafa doon loo xam ne lu ak leer la gu nekk ci biir jëmm ji nekkul ne mooy suux wi nga xam ne suñ doon opéré moom lay doon am na benn borom xam bu mag ci wàllu médecine ba noppi doon borom diine mu ne dafa am jullit boo xam ne loolu mi nga xewe riyaat jullit boo xam ne dafa feebar ci wàllu xol ba wóor ne moom mii xolom bi mënatul a wér yàlla dogal am jëmm joo xam ne dafa faatu ci accident te xol bu wér la yor bokki waajooje d'accord ci ñu jël xol bi defal ko waaj yi kon dindi nañ xolub jullit bi waa ji ci boppam ab hindus la boo xam ne jaa gëmut du dub jullit maanaam ab yéefar la nee na sax am nañu doon sikki sàkk naan waaw suñ dindee xolub jullit bi daf fi xolub ku dul jullit mbaa du wér ba noppi faf nekkub yéefar waaye nee na bi nga xamante ne defal nañ ko opération boobu yi muy nelaw bi mu yeewoo rek li mu jëkk wax moo di laa ilaha illa allah ñi xam ne kon la ne ca biir di ko kondir muy imaan ba bokkul ak suux woow yi nga xam ne moom ngay gis ñu tuddee ko xol kooku moo tudd xol ci wàllu matière waaye am na nag geneenug leer gu ne ca biir nag ca deret jaag yaram waag ruux gaag lañuy ñuy tudde nafs yooyu yépp suñ àndandoo foofa nag la xol bi suñ borom tabaraka wa di wax foofa la nekk moo tax xol boobu bu xasee sellal ba wéeru ci boromam li ci bitti lépp da koy wane loolu dana ñëw ci màndarga yi nga xam ne moo koy wone wala jeexit yi nga xam ne mooy moo koy wane ci kanam ñetteelu tomb bi ci màndarga yooyu moo di ne xol bu mucc boobu day soppi boroom dafay mujj mu xamal ko àdduna ci boppam akuk doyadeem akuk ñàkk soloom akuk tuuteem li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne àdduna ak li ci biiram àdduna ak li ci biiram su tollu woon fa yàlla ne benn laafu yoo nee na su fekkoon ne adduna ak li ci biiram lépp suñ ko boolee xiimaam valeur am toll na fa yàlla ne menn laafum yoo nee na kon du ci may ab yéefar mu di ci naan guuxub ndox fii ci àdduna maanaam kon tolluwul nenn fa yàlla boroom xol bu mucc bi lu xol bi gën a mucc day gën a xam doye àdduna ak bu ñàkk soloom su ko defee mooy tax àdduna li ci biiram du ko jaral dara léeg leen nga gis koo xam ne diineem ci boppam alal jaral na ko mu bàyyi diineem kooka xolam muccut xol ba dafa feebar léeg-léeg nga gis koo xam ne ay digg yuñ ko dig jaral na ko mu wàññi dara ci diineem léeg-léeg nga gis koo xam ne tiitloo yuñ ko tiitloo sax jaral na ko mu wàññi dara ci diineem fekk lu muy ragal adduna ak li ci biiram la ragal waaye ki nga xam ne xas na dem ba xam adduna nag ak hawaanuha wa xaqaratuha ak ñàkk soloom aku xeeboom adduna ak li ci biiram jaralu ko di wàññi dara lu toll ne tarfatu ay ni ci diineem su fekkoon ne dañ koy faagaagalit àgg na ci martaba boobu du caagi ni nag martaba boobu ñëpp fay jékki-jékki àgg maanaam tarbiya ak sellal ak defar bakkan bi mooy tax nit ki dem ba àgg foofa loolu moo tax ci jamono saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain am na ñuñ doon fitnaal ba ñu wax kàddu yoo xam ne yéefar yi bëgg nañ ko maanaam loolu lañ bëggoon ci ñoom ku mel ne Ammar ibn Yasir loolu taxul iman jóg fa ngëm yàlla ga ma nga fa waaye nag martaba ba mu tollool moom la jëfee ñu ne la ci jamono yi muy def loolu di jël ruxsaam boobu ba sunu borom tabaraka wa taala di ko jox ngant di wàcce alquran di wax ne illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imaan di ko génne ci ñi nga xam ne dañoo dañoo weddi yàlla donte tudd na kàddu weddi yàlla waaye xol ba imaana ca nekk dafa ñàkk pexe rek wax loola kooku martaba la ci waxtu woowu Bilaal ibnu Rabaax radiallahu taala anhu ñu ngi koy mbugal xeetu mbugal wu nekk di ko mbugal ba muy xëm teg ko ci naaj wi jël ay xeer teg ci biir bi xeer xeeri màkk yu tàng yooyu digg bëccëg su xamee ba ximmi ko la muy jëkk a wax mooy kàddu ya nga xam ne moom la yéefar di bañ a dégg muy ahadun ahad mu di sunu borom tabaraka wa taala kenn la xëram baaxul xëram taxawul kon kooku ci beneen martaba la toll nit ñi dañ noonu lañ demee ni ñu sutaante ni ñu wuutante ni ñu wuutante ci xel ni ñu wuutante ci ay melokaan <coughs> ak i gis-gis seeni imaan itam loolu lay rawatee jullit bi loolu du ci naagu daal di ne man de ah kon de melu ma ne diw kon du ma baax déedéet moo di ne imaan bi day dolli ko jamono yu nekk soo ko bëggee yokk mën naa yokk ci jaamu yàlla yi ak wéetal ko ak sàkku xam-xam ci la imaan di yokkoo comme ni nga xamee ne day wàññiku itam nag ci xeeti càggante yi nga xam ne mooy am kon daal xol bi mat boroomam dana ko xabal ne àdduna lu doyadi la dana xam xiima ak valeur bi nga xam ne àllaaxira moom la am muy ëllëg muy foo xam ne dañ fa war a dundi te suñ fa demee duutuñu fa jóg ba mukk kooku dana dem a dem ba mel ne moom mi ngi fii ci àdduna di dox waaye ci doomi àllaaxira ci la bokk ndax lu muy def lu ne loola la cay xool lu muy def lu ne àllaaxira la ciy xool nekk gi mu nekk fii ci àdduna dafa jàpp ne ku tukki si la waaye jàpp ne dafay ñëw pour sax fi wala ñëw pour dëkk fi daf fay jaar rek di wut ab yóbbal boo xam ne dana ko yóbbuloo man cee baaxal ëllëgam looloo ko fi indi xam nga de ki fi loolu indi eh, du fi nekk di sàkk xaram xaraam wala muy tooñ di jalgati alali jàmbur di ko sàcc wala mu di ko këf wala mu di ko denc ci anam goo xam ne gu wut la kon kooku xam na ne yóbbal bu sell la fi mën a jële ngir mu mën a mucc ëllëg su ko defee defaru nga foofu lay amee abdullahi ibnu omar radiallahu taala anhuma nee na yonente bi salallahu alayhi wa dafa jël loxoom teg ci sama mbagg nee ma kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiru sabil nekkal ci àdduna mel ne koo xam ne danga tukki si maanaam ab doxandéem nga fi li naan étranger jàppal ne danga nga fee tukki si walla nga jàpp ne danga nga fee romb di jàll am foo jëm moo tax Abdullah ibn Omar ci boppam dafa daan wax ne ida amsayta fala tantadir sabaax moom Abdoulaye moo ko doon waxal boppam nee na boo xëyee boo gontee ngoon jot nee na bul séentu suba jàppal ni guddi googu mooy sa guddi gu mujj wa ida asbaxta fala tantadir il masa soo xëyee nee na bul séentu ngoon kon mu teg ca ne wa xud min sixatika li maradik jamono yi nga àndeek wér gi yaram gaawal def li ngay def balaa feebar a ñëw wa min xayaatika li mawtik gaawal ginnaaw yaa ngi dund te faatoogoo nga fexe ba sund dund gi nga def ci loo xam ne dana mën a baaxal sa ëllëg parce que fii da nga fee tukki si xadis boobu Buxaari génne na ko kon xam na ni àdduna ñàkke solo xam na ni àllaaxira amee solo adduna li ci biiram jaru ko di fi def lu xaraam loo xam ne daf koy yàqal ëllëgam suñ ko doon jox adduna li ci biiram dana xam ne ne kii tekkiwul fa sunu borom dara mënu koo tax wàññi ci diineem lu toll ne tarfatul ayn ñeenteelu màndarga ba moo dine kooku dana dem ba àgg ci martabat al inaaba ila allahi wal ixbaat martabatul inaaba ila martaba bu kawe la dem na ba yëg ne ak dundam muy dundug ruuxam ak xéewal yi muy xéewal xéewlu ak bànneexam ak mbégteem mi ngi ci loo xam ne luy gërëm loo sunu borom tabaraka wa la na nit ka di lekke tiim ndab la ya ca nekk ci xeeti xéewal mu bëgg ca lool moom su jaamu yàlla yi su ci xalaatee ne waxtu jaamu yàlla jot na lu mel noonu lay yëg wala lu ko raw ndax dafa yëg ne mi ngi bëgg a dundal ak ruuxam kon kooku ak delloom ci sunu borom ak aju ci moom yëg na ne loola mooy saafaraam saabu xolam xalaatee ci kudul yàlla wala aju ci kudul yàlla wala sàkku dara ci kudul yàlla loola mooy tawatam mooy feebaram feebar ba la koy faj mooy dellusiwaat ci sunu borom tabaraka wa taala loolu mooy al inaaba moo di saaboo xamee ne dem na ba bay bëgg a sori addunaa nga koy bëgg a nax ci diggante ay xalaata nga koy bëgg a nax yu tekkiwul dara ay bànneex bànneexi bakkan wala ay lënt yoo xam ne lënti xel la mi ngi koy bëgg a not mu xalaataat sunu borom tabaraka wa taala xel mi delsi kooku moo di al inabatu ilallah martaba bu kawe la ba ca tegu moo di xiir gi muy xiir ci def lu baax nag kooku ci mandarga yi la bokk dafay amul xër lool lool lool ci def lu baax am lu koy naqari lool lool lool lool ci fekkee ne lu baax li nga xam ne moom la waroon a def faat na ko may leen Cheikh Ousmane ma leen mu jàll si waaw kon su fekkee ne toog na benn bis lim daan xëy di jàng ci alxuraan faat na ko tey am na sabab soo xam ne tax na xisibam bi mu daan jàng ci alxuraan jàngu ko tey walla ràkkaay yoor yoor yi daan julli wala yim daan julli ci guddi gi bu su laylil axir jotee wala sax wéet gim daan wéet ngoonuk ajjuma ndax xam ngeen ni kat ajjuma dafa am as waxtu su gàtt soo xam ne bu jant bi bëgg a sola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ajjuma june la waxtu soosu am na waxtu woo xam ne su jaam bi taxawee ñaan boroomam lu baax yàlla dana ko ko may mu ne nag waxtu wu gàtt la mu sax ci yeneen i riwaaya mooy bu jant bi di bëgg a sox kon diggante boobu am na as waxtu soo xam ne jullit bi dafay wéet ak boromam seet yi nga xam ne moom la gën a woo am réewam gën koo aajowoo aw xeetam gën ko aajowoo mu dugg fi béréb di ñaan boromam ma yooyu su demee ba benn faat ko ci ci nam ko daan defe dana am njàqare ak naqar woo xam ne mooy gën a tar mooy gën a metti naqar wi nga xam ne ki waroon a dem ca marché ba gañe fa bénéfice bu bare bare bare bari ca bis booba nelaw na ba far ñi ne ko marché ba tas na naqar wu muy am ci alal kii naqar wi muy am ci lu baax loolu mu doon def rakkaa yu néew yooyu mu doon julli wala is bu alxuraan boobu mu doon jàng wala waxtu ajjuma woowu faat na ko ci bisu ajjuma bi muy xaaral yeneen ajjuma te xamul dana del seem déet diggante boobu naqar wi muy àndal moo gën a tar naqaru ki nga xam ne daa waroon a dem ca marché ba pour gagner fa ay millions di nelaw bañ ne waa marché ba tas nañ ba jël seeni bagage kon kooku xam na fan la mbir ma toll léegi xol bu mucc moo koy tax a am beneen bi moo di du yeexe ak topp yàlla li nga xam ne mën na ko léegi day jóg def ko léegi day toog di kalkin topp yàlla yi ban moo jot fi mu nekk ban lañ war a def comme ni nga xamee ne wala waxtu wi feeg waxtu wi ñaataa ci war a des waxtu takkusaan jot na ndax waxtu timis jot na waxtu nangam di kalkin di xool waxtu wi comme ni nga xamee ne ki woor ba jant ba di lang di bëgg a so noonu lay def di xool montaram ko xoolaat kañ la dog di jot ndax ki woor dafa am ñaari mbég yoo xam ne daf ko bëgg a bég benn bi mooy bég na ci ne jeexal na bis boo xam ne ci topp yàlla la ko jeexal ñaareel bi mooy dafa xiifoon maroon mi ngi bëgg a lekk mi ngi bëgg a naan ñaari mbég yooyu moom ki woor da koy bég loolu moo tax muy yàkkamti jant bi so noonu muy mel su wooree noonu lay mel su waxtu julli di bëgg a jot noonu lay mel su waxtu génne asaka di bëgg a jot noonu lay mel su waxtu geneen jaamu yàlla gu mu mën a doon di bëgg a jot mu di ko xisaab di xool ba xam mbaa ak te yëgu ko ngir bëgg koo def ci waxtoom loolu moo tax Muusa alayhi salaam bokk na ci yem wax wa ajiltu ilayka rabbi li tarda ajiltu maanaam kon jaamu yàlla gi ci boppam bu jotee rek gaawee ko moo tax Moussa ne sama boroom dama gaaw def li nga ma waxoon ngir ma am sa ngërëm kon gaawee googu am na cosaan juróom-ñaareelu tomb ba ci yi nga xam ne dana wone ne xol bi mucc na <coughs> moo di ne koo ki xolam mucc ku nay la ci waxtoom ku nay la ci waxtoom ci muy dem ci ak neen soo jëloon nit ñi ka ca gën a nay ci alalam nam naye ca alalam waa jooju nim naye ci waxtoom moo ko moo ko ëpp nit ñi seeni nay ay martaba la ay martaba waaye nay ci alal moom yaatu na lool waaye nag ay martaba la dañ ciy rawante bëgg alal nag dafa mel ne ñépp a ko bokkale waaye nag nay ca nit ñi ay martaba yu soree lañ am na góor gu ñuy wax ne dafa nayoon ba jéggi dayo yàlla dogal mu xëy doon dem ca tool yi tàbbi ci kàmb bi mu duggee ci biir kàmb gi nit ñi ñëw bëgg koo génne ku ñëw rek ne ko indi sa loxo mu defaat nii suñ ne indi sa loxo mu daal di lemaat loxo yi bi doom ji góor ji ñëwee taaw bi ñëwee ne lu ngeen ko doon wax ñu ne ko dañ ne ko indi sa loxo mu ne déet dangeen a xamut bàyyi am sama loxo mu daal di tàllal mu daal di ko ñotti mu génn mu ne indi ji ngeen koy wax moo tax fasul yéene tàllal loxoom waaye boo ne koo am mu tàllal loxoom kon foofa martaba bu kawe kawe kawe la ci nay ci wàllu alal koo kii nag nga xam ne xam na li muy def fii ci àddunaam ni waajoojee naye ci joxe noonu lay naye ci waxtoom fasul yéene dara jóge ci loo xam ne lu amul njariñ la moo tax boo ko ci bëggee dugal nag ci lu amul njariñ faaw nga mere ko ndax fas ko ci yéene def kon ku nay ci waxtoom la ku ko fonk la abdullah ibnu masud radiallahu taala anhu daan wax ne ma nadimtu ala cheyin nadami ala yawmin garubat shamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali nee na ni ma rëccoo sama rëccu gi gën a tar nga xam ne musuma rëccu rëccu gu mel noonu mooy bis boo xam ne fenk na ba jant bi so nga xam ne yóbbul na ma bis yóbbul na ma bis bu mat sëkk wàññi na ko ci sama dund ba noppi sama jëf yokkuwu ca nee na boobu bis daal bisub réccu la ci man juróom-ñetteel ba moo di ihtimaamuhu bi tasxiixi al amal itti ji nga xam ne dana ko am ci wéral jëfam fexe ba li muy def mu doon jëf joo xam ne dafa tegu ci ni ko sharia bëgge fexe ba mu ànd ak sell ga ne ca xol ba waaye bitti bi baax maanaam wéral jëf ji moo ko gën a itteel ne na jëf ji am ci boppam maanaam bari jëf gi sell gi moo koy gën a itteel ki xol bi defaru noona lay mel moo tax abi inabat alxawlaani radiallahu anhu dafa jëlee ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne inna lillahi aaniyatan min ahli l ard nee na suñu borom tabaraka eh, boobu ñëwagul maanaam ni muy bëggee jëfam sell daf koy teg ci ñetti martaba mooy sellal gi ak topp gi ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee ak rafetal gi comme li nga xam noonu la ko suñu borom bëggee bokk na ci mandarga yooyu moo di ne dana mucc ci bëgg loo xam ne sunu borom da koo bañ lépp lu sunu borom bañ bañ na ko lépp sunu borom bëgg bëgg na ko kon yàlla du bëgg dara mu bañ ko loolu nag lu mat a bàyyi xel la ndax léegi-léegi nit ñi nga dégg ci ñoom ay kàddu yoo xam ne léeg-léeg ñuy doyadal loo xam ne diine daf ko doyadalut léeg-léeg ci melokaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jàngal nit ñi ne mel leen nii yéen jullit yi léeg-léeg nga dégg koy wax ba tudd kàddu goo xam ne yow da ngay da wóor ne lii kii bu xamoon li wax kéefër la wax ndax ma ngay saboote loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko indi te lu bokk ci diine ji saboote ko ci boppam kéefër la waaye nag réer ga mooy tax mënees ko jox ngant su boobaa jàngal ko muy gën a am moo tax lépp lu yàlla bëgg da koy bëgg lu mu bañ da koy bañ waaye bëgg-bëggam du juuyoo ak bëgg-bëggu boroomam moo xam loolu dafa jëm ci ay bànneex wala dafa jëm ci biddaa wala dafa jëm ci lu mu mën a doon beneen ba moo di kooku ku woyefu xol lay doon xol bu woyef lay doon bu am yërmaande lay doon ci nit ñi maanaam lu bon mënu koo defal plan jële ko ci moom di ko teg ay nit toog di tër tër yu bon yoo xam ne dafa fas yéene def nangam ngir mu dal ci kaw nit boroom xol bu mucc mënu ko xol bu woyof itam lay yor moo tax euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu abi inabat alxawlaani bi ma doon bëgg a junj léegi dafa ne inna lillahi aaniyatan min ahli l ard nee na sunu boroom tabaraka wa taala dafa am ay ndab ay ndab yoo xam ne fii ci waa suuf foofu la ndab yooyu nekk ndab yooyu mooy yan mu ne qulubu ibadihi saalihin nee na mooy xoli jaamam yu baax yi kon jaam yu jaam yu baax yi seen xol yi ndabi sunu borom tabaraka wa taala mu ne wa ahabuha ilayhi alyanuha wa araquha nee na xol bi ko gënal ci xol yooyu mooy bi ci gën a nooy bi ci gën a sew mooy xol boo xam ne dafa fees dell ak yërmande xol boo xam ne mënta technique nit lu bon xol boo xam ne bu ko bu ñàkk rombee day fàtte boppam sax su doonoon ku ñàkk ku nekk ci métit ku feebar bu xëyee li muy xalaat ci xeet week seeni métit du ko xalaat sax ci boppam kon loolu mooy xol bu woyof am na benn boroom xam-xam ab taalubeem nee na danoo toog ci këram mu ubbi aw ñamam daal di tam mu tiim ko ba mu yàgg muy jooy mu ne ko lii lu mu doon moom taalube bee laaj sëriñ bi mu ne ko damaa xool ñam nu tiim nun ñaar dong ñu tibbal nu ko te mu wóor ma ne am na ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam ne tey jii añuñu am na ci ñoo xam ne bu ngoonee duñu reer am ci ñoo xam ne ndekki woon nun nu tiim lii noonu loolu xol buy dund mooy mooy def noonu kon yërmaande jooju ak wayafaay boobu mu yërëm ñi ci kaw suuf loolu mooy wane ne xol bi mucc na tomb ba ca tegu moo di ne kat xol bu mucc boobu yi moo di huwa alladi laa yanju yowma alqiyamati illa man ata bihi kenn du mucc ëllëg lu dul ku indaale xol boobu loolu la sunu borom tabaraka wa taala wax ca aaya yañ ubbee woon yowma laa yanfau maalun wala banuun bis dana ñëw boo xam ne alal wala ay njaboot du am njariñ illa man ata allah bi qalbin salim lu dul koo xam ne dafa dikke boroomam fekk indaale na xol bu mucc boobu ñu doon wax léegi waxuñu ne nag kon nit ki bu mu am alal bu mu am njaboot waaye bu koy indi itam na indaale xalbun salim maanaam bu amee alal am njaboot na jariñoo ci ñooñu ngir man cee am xalbun salim su fekkee njaboot la mu jéem a dimbalante ñoom ndax ñoom itam seeni xol mën a mucc kon ñi dugg ci tomb bi nga xam ne mooy ci sës mu di assabilu ila salaamatil qalb ginnaaw xam nan xol bu mucc mooy lan xam mandarga yi wane ni kii ab xolam mucc na waaw noonu de kon bëgg nañ sunuy xol mucc nag léegi fan la ñuy jaar la ci jëkk mooy ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal nu nu am xol bu mucc kooku mooy li nu sunu borom tabaraka wa taala baaxe saa bu julli bu nekk julli gooy julli gu ne moo xam farata moo xam naa naafila la faaw nga jàng fatiha te boo jàngee fatiha faaw nga ne ihdina siratal mustaqim kon loolu ci yërmaande sunu borom tabaraka wa la bokk ci yërmande sunu borom tabaraka wa taala la bokk ndax kat su fekkoon ne daa bàyyi nit ñi noonu rek nga xam ne yaa koy war a ñaanil sa bopp nit ñi mën nañoo sàggan ba duñ ko ñaani waaye ginnaaw ab jullit faaw mu julli kon nañ ko ko dugalal ci biir julli ci li nga xam ne saa bu jullee jàng ko ñu dugalal ko ci biir mu di ko ñaan par force kooku yërmande ju mag a mag waaye nag ku dul julli bokkoo ca de julli moom amoo lool waaye kii julli lu gàtt bu nekk dana jàng fatiha ay yoon yu baree bari te saa bu ko jàngee bari nee na ihdina siraatal mustaqim waaye bu mu doy loolu rek nay ñaan boromam tabaraka wa taala bu wéeteeg moom mu defaral ko xolam mu mën a mucc ndax ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee xoli jaam ñi ci diggante ñaari baaraami sunu borom la nekk yu yuqallibuha kayfa yasha nu ko soobee rek noonu la koy wëlbatee moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ñaan sunu borom tabaraka wa taala di ko wax ne ko yow mi nga xam ne yaay wëlbati xol yi yal na nga saxal sama xol ci sa diine ji kon yal na yàlla saxal suñuy xol ci diineem ji lu bari ci <clears throat> jullit bi jullit bi jaadu na ci moom mu xir lool jii ma góor góorgóorlu lool ci lépp luy sellal xolam lépp lu koy defar lu bari ci nit ñi dañuy nangoo sonn lool ci setal seen yaram defar seen karaw ba mu set defar seen yére yi ñuy sol ba mu set fekk am na leneen loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom lay xool loola la war a gën a itteewu te itteewu ko muy xol ba dëgg la nag teewut jullit bi dañ ko sant de moom na set wecc léppam daa war a set biiram ak bitteem waaye li ñuy bañ mooy nga itteewu bitti bi ba noppi sàggane biir ba moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixu muslim mu ne inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum yàlla du xool seen nataal yi ak seen alal yi walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum waaye seen xool yi lay xool ak seen jëf yi maanaam loolu moo itteel yàlla su biti bi seetoon te xol bi baaxut kon njariñ njariñ amu fa kenn ku nekk xam na ne xol bi ginnaaw moom moom ngay jàkkaarloo ak sa boroom war nga xam ne kon war nga góorgóorlu ba mu set ba mu ndax doomu aadama yi nga xam ne ñoom ngay jàkkaarlool ci bitti bi ngay jàkkaarloog ñoom loolu moo tax ngay nangoo sonn ci bitti bi lu nekk nga jéem koo sol jéem koo defaraat rawatina ñu ne la woon tey nag dafa am kilifa gu mag goo xam ne moo lay recevoir tey moo xam ab président la moo xam ministre la moo xam dara da ngay gis lenn lu nekk dana ko jéem a cokk cokkal defaral defar ba bu àggee ñi mën ni kii am na personnalité parce que bitt bi la ko bëgg a won kon nag naka su fekkee ne wóor na la ne ki bind bindeef fii moom dafay xool sa xol boobu ba xam nan la mel kooku war nga góorgóorlu ci mu sell lool al imaam ibnu alqayim rahimahullah dafa wax ci téere bi ñuy wax addaa wa dawaa maanaam téere boo xam ne daf koo tudde tawat ak la koy faj tawati xol ak la koy faj nee na xol bi munta mucc lu dul ci juróomi yëf kon kooku mooy asabil ila salaamati alqalbi nee na xol du mucc lu dul ci juróomi yëf yooyu mooy yan nee na assalaamatu min shirkin yunaqidu tawxid ba ci jëkk mooy na mucc ci bokkaale goo xam bu ñëwee dafa yàq sa tawxid xol ba na mucc ci loolu kon jaam bi lépp loo xam ne dana ko dimbali mu mën a mucc ci bokkaale loola na ci góorgóorlu te loolu mënta weesu jàng tawxid ba xam ko wëlbati ko di ko dund nee na wa bidaatin tuxaalifu sunna nee na ak mucc ci bidaa boo xam ne dafay juyoog sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biddaa boobu moo xam pas-pas la moo xam ay wax yu muy wax la moo xam ay jëf yu muy jëf la waaye li fekk mucc ca xol ba du mucc kon nag bul am lu la bett boo gisee xol yu bare bari nag mucc ñu tey ndax biddaa yu bari moo ko waral ñetteel ba nee na wa shahwatin tuxaalifu al amra bànneexu bakkan boo xam ne dafay jooyoo ak la yàlla digle maanaam lam santaane bànneexu bakkan boo xam ne day tax nit ka juyoo ak la borom bi tabaraka wa taala santaane nee na wa gaflatin tunaaqidu dikra ak càggante goo xam ne dafay dox diggante nit ki ak fàttaliku boromam tabaraka wa taala ak di tudd dikr nee na wa hawan yunaaqidu tajrida wal ixlaas ak bànneexu bakkan boo xam ne dafay juyoo ak sellal juróom yi nee na xol du mucc te nit ki mucc ci moo tax mu teg ca ne wa haadihi alxamsatu xujubun anillah nee na ay kiiraay la yoo xam ne day kiir nit ki digganteem ak boroomam kullu waxidin minha anwaaun kasira nee na boo ci jël bu ne rek ay xeet yu baree baree bare bari la boo jëloon bokkaale li am ci xeeti bokkaale kenn xamul nu mu toll boo jëlee biddaa li am ci biddaa kenn xamul nu mu yan yenn yi pas-pas la yi ay wax la yi yu nit ñi jëfe la boo jëloon bànneex bakkan ak la muy dugal nit ki ci xeeti mooy yàlla yooyu yépp nee na benn bu ci ne anwaaun kathira wa tatadammanu afraadan la tanxasiru nee na xeet boo ci jël bu nekk la nekk ci suufam ci ay lim nee na kooko yëmut fenn léeg-léeg nag nit ki dafa yaakaar ne su dégloo lu mel nii ngir mu mën a mucc daal dafa war a dem rek toog ca këram bu demee ci liggéeyukaayam bu dikkee toog ci këram bu dikkee làqu diggante jàkkaam ak këram akub liggéeyukaayam bàyyi nit ñi faf ndax mu mën a mucc am na ñoo xam ne jàpp nañ ne mënuñoo mucc li fekk dafa ñu noonu daw mbir am na ay kuréel yoo xam ne jaaroon nañ fi ci histoire l'islam donte wàññi ko nañ lool lool nag jàpp nañ ne mucc moom mooy nga daw nit ñi li ñu tuddee al uzla ngir nga mën a àgg ci xol bu mucc te fekk nag loola demewul noonu li nekk waaqe mooy li am dëgg-dëgg moo di ne lépp lu sunu borom tabaraka wa taala digle lépp lu mu digle moom sunu borom tabaraka wa taala ci xeeti ndigal jàppal ne loola luy laabal xol la julli yaag koor joxe asakaak sàkk sarax ak lépp loo xam ne lu sharia bëgg la am na tomb bu muy laabal ci xol bi nga xam ne booba rek moo ko mën a fóot digle lu baax ak tere lu bon ak doomu aadama yi laaya leen biir ak rafetal jëme ci ñoom ak yooyu yépp benn bu ci ne am na ayib bu ne ci xol bi boo xam ne su ko nit ki defee loolu moo koy raxas mu set kon jaamu yàlla yépp ñooy àndandoo door a mën a laabal xol bi kon làqu fi béréb boo ko defee yu baree baree bari danañ la faat yoo xam ne yu war laabal xol lañ te yooyu doo ko jëfee su ko defee sab xol dana laab moo tax borom bi tabaraka wa bi muy nettali euh, kóllëre gi mu jëlee ci banu israil daf ne walaqad axadna mithaqa bani israila wa baasna fihim isnay achara naqiba nee na dama nattu jël kóllëre contrat sama diggante ak banu israil yónnee leen fukki naqib ak ñaar xam naa ay délégation wa qaala allahu inni maakum la in aqamtum salaata wa aataytum zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtum allaha qardan xasana la ukaffiranna ankum sayi'aatikum wa la udxilannakum jannatin tajri min taxtiha al anhaar nee na mu jël ci ñoom kóllëre gan moo di yàlla daf ne leen man de danaa matal sama wàll danaa leen dimbali danaa leen jàppale waaye ci kaw lan bu ngeen taxawalee julli bu ngeen joxe asaka bu ngeen gëmee sama yonent yépp bu ngeen leen jàppalee dimbali leen dëgëral leen ba noppi nangoo lebal yàlla juróomi yëf su ngeen ko defee danaa far mboolem seen bakkaar yi ngeen defoon danaa leen dugal àjjana joo xam ne dex yaa nga yolaan ca suuf fa man kafara ba'da dalika minkum faqad dalla sawaa as-sabil mu teg ci nag ne fa bima naqdihim mithaqahum laannaahum wa jaalna qulubahum qaasiya nee na ci sababu kóllëre googu ma defoon ak ñoom ñu wor kóllëre googu triché nee na loolu moo tax ma rëbb leen ba noppi def seeni xol ñu doon xol yu wow kon xol bu wow mooy safaanu alqalbu salim nga xool loolu xol bu wow boobu fan la jóge mbugal la mu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ci kaw lan ci kaw loo xam ne dana leen woon su ngeen ko defee ma defal leen lii su ngeen ko deful maanaam su ngeen waree coloré googu lii laa leen di faye yooyu boo ko xoolee yépp nun ñii sàkku nañ ko ci nun jullit yi maanaam yëmut ci ahlul kitab wala eh, yahud yi muy taxawal julli joxe asaka gëm mboolem yonenti sunu borom tabaraka wa taala nusratuhum muy dimbali mboolem yonenti yàlla yi ak iqraadullahi qardan xasanan mooy joxe fi sabilillah yooyu yëpp dañ ko sàkku ci noonu kon bun jàpp ne xeeti jaamu yàlla yi am na ci genn goo xam ne boo ko bàyyee jàpp ya ca des te fekk mën nga ko bul jàpp ne du day yàq sa diggante ak sa borom mën na laa indil ak rëbb mën na laa indil xol boo xam ne bu wow la kon jaamu yàlla gu ñuy xeeb wala gu ñuy jàpp di bàyyi ga ca des loolu amut kon loolu mooy yoon wi nga xam ne ci la nit ki mën a jaar ngir ab xolam sell mooy jaamu yàlla yi ay saabu lañ yoo xam ne dañuy raxas xol bi mu set ak gum ci mën a doon nag lu mu tuuti tuuti bul xeeb dara jeexit yi nga xam ne dana ko bàyyi ci xol nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna fi ljasadi mudghatan ida salaxat salaxa aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu foofu ñu bari dañ koy jàng saluxat waaye du noona salaxat la xadis bii riwaay bi noonu la dikkee te it salahat borom xam-xam yi lu yi dañuy wax ni moo gën a xóot saluhat donte arab nangu na saluhat saluha des na ko wax ci arab waaye xadis bi moom salahat la wax nee na biir yaram bi dafa am cër bu ci nekk boo xam ne su baaxee lépp baax na su yàqoo lépp yàqu na mu ne ala wahiya alqalb nee na cër boobee mooy xol bi kon xol bi su baaxee xolu baatin ba lay waxe xol bi nga xam ne moom laa la waxoon ne bokkul ak bi ñuy déplacé di dugal beneen boobee nga xam ne mooy xolub leer bi su baaxee kon jàppal ne yaram bépp ci wàllu njub dafay baax misaal la ci xolub zahir bi kat ndax xolub zahir bi ci boppam su baaxee yaram bépp day ànd ak wér gi yaram waaye su xol bi yàqoo lu cay tegu moo di yaram bépp day daal di wéradi kon xol bii nekk ci bitti ñi koy gis di ko opéré di ko faj misaal la ci xol bi nekk ci biir nga xam ne ni wér gi yaram di amee ci xol bi ci bitti wér gi diine noonu lay amee ci xol boobu nekk ci biir lu ca sikk rek day feeñ ci diine ja comme ni nga xamee ne xol bii ci bitti lu ci sikk day feeñ ci wér gi yaram gi moo tax mu ne su baaxee lépp baax na su bonee lépp moo tax nit bu dikk ci yow mukk def ay njaaxu moom wala ay melokaanam yoo xam ne lislaam santaane wu ko ngay wax ak moom mu ne la xol rek moo am solo te sama xol baax na déedéet xol bi su baaxoon li ci bitti wane ko su xol bi baaxoon li ci bitti wane ko al amalu tutarjimu ma fi l qulub li nga xam ne mooy jëf yi loolu mooy feeñal la nekk ci biir xol yi ndax léeg-léeg nit ki nekk ci njaaxumam ba noppi nit ñëw di ko laaye biir wala mu di ko wax li nga xam ne ca la nekk di ko wax ne ko lii lu baaxul la jigéen ju muurugut wala mu def ay meesam wala mu def ay caaxaanam taxaw wan la ne la ah xol rek moo am solo ndax am na ñuy muuru ba noppi def nangam na ngam kenn waxut loolu nit ki mën naa muuru ba noppi def lu dul noonu waaye lii nga def yow loolu lijjanti ko ba noppi ginnaaw ñu tere la nga def ko yow kële lañ gën a rafet ci ci moom njort bitti bi su baaxul rek kenn mënuma layal bu la kenn mën a layal yow itam ne ca biir baax na kon moo tax ngay góor góorlu ba lii feeñ ci bitti doon loo xam ne day wane ne baax na ibnul qayim nee na xol boobu bu baaxee maanaam jeexit yi muy indi moo di ngëm day fees dell ak ngëm yàlla jëmmi xol bi dañ koy chargé ba mu fees ak ngëm yàlla dañ koy chargé ba mu fees akug leer leer googu nee na bu ñëwee xiinu bànneex waxiinu ibnu Qayyim la de xiinu bànneex nee na day wuri xiinu lëndëmu mooy yàlla day wuri ndax leer googu moo ko ci defe naa xam ngeen xiinu wu wuri asamaan si su xiinee ba ñuul kukk jekki ba mu yàgg mu weex tàll jant bi feeñ nee xiinu mooy yàlla wi nekkoon ci xol bi xiinu caaxaan wi xiinu bànneexi bakkan yi leeru xol bu mucc boobu yi bi mu sooboo ci biir xol bi nee na xiin woowu day day wuri maanaam bànneexi bakkan yaag caaxaan yaag yépp dañuy dem nee na fali nuurihi fi sadrihi ishraq nee na leer ga ci dënnam ba dafa am ak fenk goo xam ne dafa jekki-jekki fenk ko comme ni jant bi di fenke mu ne walaw dana minhu l waswaasu xtaraqa bihi nee yi nga xam ne ñooy jax-jaxal jax-jaxasal xol yi bay dugal nit ki ci mooy yàlla nee na bu jegee xolam boobu jaxas-jaxas jooju day jekki-jekki lakk parce que leeru xol bi moo koy lakk mu ne fa huwa ka samaa illati xurisat bin nujum nee na xolam boobu dafa mel ne asamaan soo xam ne yàlla da ko wattu ni muy wattu ni mu koy wattoo ak ay biddiw falaw dana minha shaytaanu rujima nee na bu shaytaani jege woon xolam boobu dañ koy sànni ay ay xeer moo tax mu teg ci ne walaysat samaau bi azama xurmatan min al mumin nee na asamaan si borom bi tabaraka wa taala da ko wattu teg fa rujuman li shayatin nee na xolub jullit moom la yàlla gën a bëgg ci asamaan ginnaaw asamaan lay garde ba seytaane yi duñ fa yéeg di sàcc xabaar yi ñuy jox yonente ya kon xolub jullit bi nga xam ne imaan xas na fa sax xol ba mucc na kooku moo gënal sunu borom tabaraka wa taala wa xiraasatullahi lahu wattu gi ko sunu borom tabaraka wa taala di wattu nag atammu min xiraasati sama moo gën a mat na muy wattoo asamaan kon kooku mooy xol bi nga xam ne benn jeexit la ci ay jeexitam bokk na ci jeexiti xol bu mucc yi koy wane ci bitti moo di ne ki nga xam ne xolam mucc na ay waxam ak i jëfam ak pas-pasam dañ koo tënk ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi li yonent bi indi ci tënk ay waxam ay pas-pasam ay jëfam lu neex yonent bi sallallahu alayhi wa salam ci diine ji ba mu santaane ko loola sedd na xolam amu ca lu muy bañ amu ca lu muy wattandiku moo tax su boobaa diine ci boppam muy alkitaab wa sunna ñooñe ñoo aaki moo jëfam ñoo koy kondir maanaam moo xam jëf ju rëy la moo xam jëf ju tuuti la du jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa ci jëf lu muy bëgg a jëf lu ne dana xool ba xam lii lan la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam pas-pas la moo xam wax la moo xam jëf la borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih bu leen jiitu yàlla kub yonentam borom xam-xam yi nañ ko firee moo di laa taqulu xata yaquul wala tafaalu xatta yamur bu leen wax li feeg néewul wax leen foofu bu leen jëfit li feeg néewul jëf leen maanaam seeni wax ak seeni jëf na topp ci ndigal lu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ka noonu mooy wane màndarga mu wane ni kii tënku gim tënku ci sunna nga xam ne lu muy def mu tuuti mu bari ci ay jëflenteem ci ay jikkoom ci pas-pasam lépp tënku na ci sunna mooy wane ne kii am na xol bu mucc moo tax baadu salaf dañ ne ma min filatin wa in sawrat illa yunsharu laha diiwaanaan nee na jëf ci diine ji lu mu tuuti tuuti danañ ko ubbil ñaari registre yu mag ay téere yu mag yoo xam ne ay question la moo ci nekk ab laaj boo xam ne da koy tontu nee na benn bi mooy lima beneen bi mooy kayfa jëf joo jëf danañ la laaj ñaari laaj yooyu ginnaaw diine la tudd lima mooy lima faalta hada lu tax nga def ko indi nga ak jaamu yàlla moo xam xeetu julli la moo xam xeetu woor la moo xam xeetu iit la ak feet goo xam ne da di dajaloo di ko def jàppal ne bisa ngi ñëw danañ ne leen li ma faalta hada lu taxoon nga def loola su boobaa sa tont benn képp lu mën a doon moo tax dañ ne fa tariqu taxallusi min a al awal bi tajrid al ixlaas nga ne lii yàlla rek a taxoon ma def ko maanaam dañ ma ko sant loolu moo tax ma def ko dalilam mooy nangam ci alquran mooy nangam ci sunna beneen bi mooy kayfa lii ni nga koy defee nan la su doo wax ne dama koo xalaat wala dama koo roy wala nangam waaye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa ko jëlee moo tax mu ne wa tariqu taxallusi min assual althani bi taxqiqi almutabaa ci wéral topp gi ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñaari laaj yooyu gépp jàpp jaamu yàlla gu nekk fàttalikul ne danañ la ko laaj li ma faalta wa fa faalta lu tax nga def ko ak nan nga ko defe bokk na ci melokaan yi nga xam ne walla <clears throat> jeexit yi nga xam ne xol bu sell da koy bàyyi ci jëmmi nit ki moo di ne jëf yu baax yu rafet yi nga xam ne boroom xol bu mucc da koy def da ko teg ci kaw yéene joo xam ne digganteem ak boroomam la yéene joo xam ne digganteem ak boroomam la kon jëf jooja li feeg ngi koy man da koy def ndax kam koy jëflanteel ma nga fa kim koy def ci moom it melokaan wu mu mën a yor dana ko def ci moom lay feeñal nag koo xam ne melut noona ndax léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy def lu baax jëme ko ci nit ñi maanaam lu rafet léeg-léeg sax duñ doon jullit ku yàkkamte da ngay jàpp ni ñii kër ñu baax lañ wala seeni xol mucc na waaye fekk déedéet xol ba muccut xol bu yéefar mënta mucc lu tax mooy pas-pas ba tax muy def loolu intere la boo xam ne fii ci àddunaa ko tax a jóg su demee ba amatu ca yaakaar ca la taxoon mu jóg day arrêté liggéeyam loolee mu doon def kon kooku yàlla taxu koy def am na kuy def lu baax di ko jëmale ci nit fekk lam ci jublu mooy na ko tagg su ko tëggul mu bàyyi ko léegi la nga gis koo xam ne day defal nit lu baree baree bari dem ci mbooloo di séentu mu wax ko ci nit ña su ko waxul bu ëllëgee mu jéggi kooka dem seeti keneen rawatina nag su fekkee waa jooje ci biir mbooloo ma tudd na keneen ba noppi tudd ko moom tudd ko su xol ba mëccut dana ah, kii moom li ma ko defal bëkk démb génne ko ci nangam ak nangam mu ñëw ba fii ci mbooloo mi di wax diw sàngam ak diw te du wax li ma ko defal man daal di téye loxoom kooku yàlla taxul muy def kooku day wane ne xol ba tawata nga ca yoo xam ne dafa war a lu mu dañ bokk na ca moo di ne boroom xol bu mucc mboolem yi nga xam ne dañuy xëcc nit ki di ko jëmale ci àdduna ba tax mu mën a woon gannaaw àllaaxira ak diine yooya duñ ko mën a yóbbaale yooya bokk na ca yi ci jiitu alali àdduna bokk na ca ay doom ak seeni bànneexi bakkan ak ay njaboot ak yu mel noonu moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne almaalu walbanoon zinatul xayaati dunia walbaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaba maanaam alal ak i doom nee na mooy taarub adduna waaye nag am na lu ko gën mu yi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala indi nga xam ne bu ci nit ko jàppee mooy des ëllëg amal ko jariñ kook mooy topp yàlla waxaat ne waalamu annama amwalukum wa awlaadukum fitna xam leen ne seeni doom ak seeni alal fitna la seeni alal seeni doom fitna la kon yooyu ay mbir la yoo xam ne dañuy taxaw ci yoon wi nit ki bëgg a sellal xolam dox diggante moom moom waaye ki xol bi mucc mucc na ci yooyu yépp dana leen jox seen àq ji leen lislaam jox waaye du yàq dara nag ci diineem moo tax borom bi tabaraka wa taala bu muy wax ne ëllëg kay mucc ñaar yooyu la jël teg ko ci kanam muy alal ji ak doom yi moo tax mu ne illa man ata allaha bi qalbin salim yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin bokk na ci yi koy wone moo di ne xol bi mucc day feeñ ci ay jikkoom ak i jëflenteem ndax yàlla lay jëflenteel moom lay yàlla xam na ne boroomam moo koy contrôler te boroomam day gis li nekk ci xol kon kooku ay jikkoom ak i jëfleenteem dafa am lum mu seet loo xam ne sunu borom tabaraka wa kenn ku ne it xam na qissa bi nga xam ne asxaabul xaar ñi demoon ci biir xunti ma bëgg a génn mu tëju ñi ne kenn ku nekk na nga seet jëf ju baax joo xam ne danga nga koo defoon te yàlla dong tax nga tawassul ci jëf jooju ndax yàlla ubbee ñu kenn nga ca koo xam ne dafa am doomu baayam bu jigéen boo xam ne ku taaru la woon mu bëggoon ko ndaw si bëggu ko looloo day am mu def pexe yu ne mu të nee na benn bis mu toog ba mu yàgg ndaw soosee ak ñàkk gu metti dikkal ko te waa ji boroom alal la ndaw si ñëw di sàkku ci moom alal en tant que koo xam ne mbokkam la waa ji ne ko du ma la jox lu dul su fekkee ne jox nga ma sa bopp ndaw si ne ko ragalal yàlla daal di dem jekki ba ñàkk ga gën a tar mu del waat ne ko ah man de awma pexe kon sooy ba nga jox ma li nga ma mën a jox te def li nga wax waa ji yëkkati alal jox ko bi mu demee ba dara desut lu dul war a def li nga xam ne mooy mooy yàlla gi ndaw si ne ko ragalal yàlla diggante boobu kàdd googu jeexital ci xolam mu jóg daal di ne ko bàyyi naa la ngir yàlla yóbbul alal ji itam ci biir xunti moomee bokk na ci la wax mu ne yow yàlla su fekkee ne yow rek yaa taxoon ma def loole ma bàyyi mooy yàlla googee kon yàlla nag nu génne fii nu dugg fii nu nekk xunti ma ne sa feet ab diir kon jëflente googu ki nga xam ne xol bi mucc na dafay àgg ci sunu borom tabaraka wa lay jëflenteel bokk na ci yi doy waar ci sunu jamonoy tey am na benn noddukat bu nekk Riyad ñi di ko wax euh, Ibnu Majid ñu bari dañ koy dégg ci idaatul quran muy nodd bu tisbaar jotee ku ko ciy déglu góor googu ci xeetu laay biir ak xol bu woyof ba ci picc yi nga xam ne dañuy nekk ci wetu jàkka ji muy nodde yàlla xam ne ne génne nañ ko ci benn vidéo man seetaan naa ko te gis naa ko ci sama bët sax ndax yàgg na lu yàgg yàgg la petax yi saa boo xamee ne ñëw na gaare otoom am na lu leen di indaale loo xam ne day ñëw jox leen ko kooku jëf leen tuut ak petax yi dafa dem a dem a dem ba dañ koo miin nga xam ne jamono bu gaaree oto bi bu duggee ci jàkka ji nodd ñiy julli bu dikkee day fekk li wër oto bi day fees dell ak i petax bu agsee ñoom ñëpp dañuy naaw daal di wër mel ne ku bëgg ci moom di ko wan ay melokaan yoo xam ne kéemaanu yàlla la su ko defee mu daal di ñëw ubbi maalo otoom daal di tàmbali suyal leen dem maanaam yu tuuti yooyu nga xam ne da koy romb defe ne amul solo waaye xol buy dund mooy bàyyi xel lu mel noonu xol buy dund mooy bàyyi xel lu mel noonu kon li may daaneele mooy benn xissa boo xam ne moom moo ma tax a jóg yi dama cee jàmm jaar rek jàll dafa am benn bis ci dëkk bu ñuy wax Marwu ca Xurasaan benn borom alal joo xam ne ku ñi ngi ko daan wax ibnu abi mariam wala ibnu mariam ci lenn ci riwaay nuux ibnu mariam nuux ibnu mariam borom alal ju bari la woon boroom daraja la woon ju mag nag waaye mu dolli ca doonitam itam boroom diine ak jikko moom nuux ibnu abi mariam yàlla dogal mu am doom ju jigéen joo xam ne ci wàllu taar yàlla dénk na ko ci loo xam ne lu bari la waaye la nekkaat ca kaw loolu mooy doomam ju jigéen jooju boroom jikko la boroom diine la itam moom nuux ibnu Maryam moomu am benn jaamam boo xam ne Mubaarak la tudd Mubaarak moom yi amul woon dara dara ci àdduna ndax doy na rek nga xam ne nit ki ab jaam la kon amul dara lu mu am boromam a ko moom maanaam ab sangam waaye moom it borom jikko la ak diine kon kërangoog goo xam ne borom kër gi borom jikkoog diine la doomam ji jigéen ji ñuy soow ci taar borom jikkoog diine la jaamam bi borom jikko ak diine la benn bés da koo yónni ci ay toolam ne ko kaay demal ma ca tool ya boo demee nga toog fa kon tool ya sore nag dëkk ba nanga ma gardeel meññet ma nanga fa nekk itam di liggéey ba ba ma la fay fekk mubaarak daldi di fa bi bagaasam tuxu dem ca tool ya nekk fa di liggéey di def la ko kooka waxoon toog ca tool ba loo xam ne mat na ñaari weer ibnu Maryam fekk foofa muy nuux ngir dafa ñëw pour noppalu si ci tool ba moom itam bi mu agsee dikk nuyoo moom ba àggal toog ba kii mu ne ko demal indil ma ci raisin ji mu dem dagg raisin daal di dikk jox ko mu mos ko mu wex xat mu ne ko yow bi ñurut li nga ma jox ñurul demal indi leneen loo xam ne lu ñor la mu dem daggaat dikk jox ko mu mosaat ne ko lii ñorut demal indiwaat mu dem indiwaat lim indi gën a weex mu xaw a mer nag ne ko waaw mubaarak maa ngi lay wax demal watt ci meññeet mu ñor mi indil ma yow nga di ma indil lu ñorut te su ma la ko waxee rek nga dem defaat noonu waaw xanaa da xam xàmmeewut rese ju ñor ak ju ñorut wala ju neex ak ju neexul mu ne ko wallahi ma arsaltani li aklihi yónni woo ma woon pour may lekk resin wa innama arsaltani li axfadahu wa aquma ala xidmatihi da nga maa woon ngir ma wattul la sa alal ak di liggéeyal teg ca ne walladi laa hu ma duqtu minhu inabatan waxida bi ma fi ñëwee ak léegi mosaguma ci benn doomu resin ñaari weer bokk jullit yi xool leen foofu ku xool sa bopp xool foofu ñooñee fi ñu toll woon danga nga waaru ci sa borom waaye da rus fi sa kanam borom itam daa di ne walladi laa ilaha illa huwa maa raqabtuka wa innama raqabtu wa ma raqabtu ahadan min alkainat walakinni raqabtu alladi laa yaxfa alayhi fi l wala fi sama mu ne ko waat naa ci yàlla ne du caagi ni bàyyi la xel yow moo tax lekkuma ci sa resin yi du caagi ni kenn ci bindee yi it moo tax waaye ki nga xam ne moo may gis di ma dégg te dara du làqu fi moom ci asamaan ak suuf kooku moo tax laalu ma tool bi bi ma fi ñëwee ba léegi ah bi loolu amee nag ujiba bihi wa ujiba bi waraihi mu yéemu lool moom noox ibnu abi mariam ci jaamam bi ñuy wax mubaarak ne ko yow kat ab jaam laa la defoon nag waaye dama laa bëgg a def ku ñuy diisool te ku gëm yàlla te baax ku laa biir lay doon moo mat diisool ab naafiq workat lay doon kon dafa am lu may diisoog yow fii ci jataay bi sama doom ji diw sàngam diw seet na ko diw seetsi na ko diw seet tudd boroom alal yeeg borom daraja yu mag yi ci dëkk bi kenn ku ci nekk seet si na ko ngir bëgg ma may ko sama doom ji jabar léegi yow kan nga may jox xalaat pour ma may ko sama doom ji mubaarak ne ko ahlul jaahiliya day ñi nga xam ne ñooy ceddo ya ñooñu dañ daan maye seeni doom lil asli wal xasabi wal nasab ñooñu suñ daan maye seeni doom askan lañuy xool ak deret ceddo ya noonu lañ daan def ne ko nag al yahud yuzawijuuna lil maal mu ne ko yahood yi ñoom bu ñuy maye seeni njaboot alal mooy tax wan nasaara lil jamaal nasaraan yi bu ñu maye seen doom taar lañuy xool mu ne ko wa ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuzawijuuna lid diini wal xuluq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñam àndal nag ñooña diine ak jikko lañ daan maye mu ne ko wa ala ahdina lil maali wal jaah sun jamono nag alal ak daraja la ñuy xool kon juróoma ngoog ceddo ya ak yahud ya ak nasaraan ya ak yonent bi ak saxaabaam ak seen jamono nee na nga xam ne lañuy xool mooy alal ak daraja mubaarak teg ko ca ku mat a diisoo mu ne ko wal maru maa man ahabba nit ki nag ñam bëgg rek lay àndal wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku nuru nuru lu aw nit da ngay daal di bokk ci ñoom maanaam da ko bëgg a wax ne juróomi kuréel a ngoog yow yaay seetal sa bopp nag ñan nga ci bëgg a gën a nurool ndax da bëgg a mel ne ceddo ya wala da bëgg a mel ne yahud ya wala nasaraan ya wala danga bëgg a mel ne suñ jamonoy tey wala da bëgg a mel ne yonente baaki saxaabaam nazara ibnu mariam wa qaddara wa fakkar mu tàmbali di xalaat di xalaat ba mu yàgg mu ne ko daal mubaarak anta xurrun li wajhillah li may tàmbalee mooy libéré naa la as gor nga bis nekk tey comme man noo bokk yam kooku benn la ñaar seet naa seet waaye yow mii laa bëgg a may sama doom ji Mubaarak ne ko ah, laaj ko ba noppi laaj ko ba noppi loolu tomb bu am solo la ñu dellu ca kër ga baay bi woo doom ji mu ñëw mu ne ko man de seetlu naa ñi fiy ñëw ñëpp gis nga leen borom alal yeeg borom daraja yeeg yëpp waaye ki ma bëgg may daal mooy mubaarak mii xale bi ne ko atardaahu lii ndax yow ci sa jëm bopp d'accord nga ci mu doon sama jëkkër qaala naam xale bi ne ko inni ardaahu muraqabatan lilladi laa yaxfa alayhi shay'un fi al wala fi sama man itam d'accord naa ci loolu ngir bàyyi xel sama borom tabaraka wa ci ne nit ñi gënante wuñ fa kanam mu daal di woo nit ñépp ñu daje mu may ko doomam nit ñi di yéemu ñi xanaa nuux ibnu abi mariam dafa dof borom alal yeeg borom daraj yeeg kenn ku nekk dikk mu jël doomam di ko may jaamam boo xam nekk ci ci këram ñu ànd sëy ab diir bu gàtt borom bi tabaraka wa may leen doom ñu tuddee ko Abdullahi xam ngeen Abdullahi moom mooy mana a Abdullahi ibnu Mubaarak allahu akbar kooku mooy Abdullahi ibnu Mubaarak imaam joo xam ne ak imaamam mat na ci lépp muy jëmm joo xam ne dafa fees dell mat sëkk ci xam-xamam ak ci lépp kon loolu mooy cosaanul Abdullahi ibnu Mubaarak mbokki jullit yi ngir daaneel waxtaan wi ñu xam ne ittewoo xol ittewoo mbirum xol mbir mu am importance la lu bari ci nit ñi nag tey sàggane nañ ko lu bari sàggane nañ ko te it jublu xol bi jéem ko bàyyi xel jéem ko yéwénal di ko bàyyi xel di ko contrôler lu ci yàqu nga defaraat ko ba mën a nekk xol bu mucc kooku it la joo xam ne kenn ku ne sas wu mag la ci sa kanam tàmbalee ko ci mboolem tomb yooyu nga xam ne moom lañ tudd fexe bay ñaan sunu borom tabaraka wa mu defal ñu tawfiq suñuy xol mën a mucc nu mën a dund ci loolu lépp luy gàkkal xol ci xeetu ay mbañeel ak ay tilim tilim yoo xam ne dafa yàq xol ñu jéem ko raxas ba mu set wecc ndax nu mën a doon ay nit ñoo xam ne ñu mucc ay xol lañ kon mbir mi ndekete yëmut rek ci jàngub xam ba xam ko mu jeex waaye da jàngub xam bi daa war a nekk moyen booy jëfandikoo ngir mën a def jaamu yàlla yi te borom bi tabaraka wa taala tax mu mën a raxas xol bi ba mu set wecc nga mën a doon jaam buy dox ci kaw suuf fekk yaa ngi yore alqalbu salim yàlla na ko sunu borom tabaraka wa taala defal wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabia athaarahum ila yawm iddin kon mën nañu wax ne tey ñu ngi doon jël benn leçon benn tas ba ñu ci wàllum al qalbu salim simaatuhu ataaru xol bu mucc ay wàndargaam ñu koy xamee ay jeexitalam ci biir waxtaan bi mu tàmbalee moo def benn muqaddima ci xamle lan mooy al qalbu salim dafa taarif bi kon ci jóge ñëw na ci ak tariq ila salaamatil qalb yoon bi ñuy jaar ba xol mucc kon ci jóge ñëw na ci mandarga yi jeexale li nga xam ne moo jeexital jàpp naa ni sans commentaire la euh, mën nañu wax bu baax a baax li ñëw ci muy lenn ci ay laaj yoo xam ne war na ci liggéey ñëw bëri na waaye jàpp na ne mën na jukki def waaye dinañ jël yenn yi euh, li ci incha eh, ah. ah, allah kon imam Mansour Samb moo doon ko mas ko doon ko jël ko ci bàyyi ko bëgg a photocopier rek jël ko ci moom waaw fi dafay wax ñu ko gis ci ay yenn ci ay aaya di tere jullit di sopp ni daf yéeféer waaw dafa noonoo yàlla yàlla ak yoon kan tuddul aaya bi waaye jàpp naa ne xëy na aaya bu bëgg a wax ولا تجعل قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون حق الله ورسوله dafa fekk ku gëm yàlla muy sopp di am cofeel di bëgg ku doonoon yàlla yonantam waaye mu ne naka la ñuy déggee loolu bu gisee yàlla tere julit di bëgg yéefee ba pare mu daganal julit bu góor mën a takk ki nga xam ni euh, yéefee la bu jigéen am na ne su ko takkee foofu bëgg ko moom ne na loolu daal ishkaal la ci moom ko def ko leer loolu mooy laaj bu njëkk beneen beneen laaj bi ki dafay wax ni dafa seetlu ne mbokk yi li ñu di tuumaal léeg-léeg ci ñàkk teggin wala ñàkk yar ak ñàkk am kilifa mel ni am na ci lu lu dëgg nee na dafa seetlu benn phénomène boo xam ne mu ngi xew ci mbokk yi rawatina shabaabu ahlu sunna ak jeunes yi benn genre feebar boo xam ne mu ngi ci ñoom mooy yàkkamti ak gaaw a juumloo ak borom xam-xam ak gaaw a critiqué ku leen su annulé loolu boo xam ne léeg-léeg ak yim jàng ñoom dundaluñ ko mu ne daal bëggoon na léeg-léeg sax moom da ngay toll ni euh, mu ngi critiqué ak borom xam-xam léeg ci xam-xam ba sax waaye danaa ne lii war naa ragal yàlla ci masala bi mu wala war naa ragal yàlla ci. xutbaam tey wala war naa ragal yàlla ci fàttali euh, dégg bi mu ne am na ki lay wax loolu kii wax loolu kii euh, tax ci am kii juum la borom xam-xam bi ca ubbeem wala ca fatwaam wala ca waxam léeg-léeg nee na waaw bi ci wala aadi yaa sax xamu ko mu ne daal bëggoon na ay laay bi ci li nga xam ne mooy euh, mbir boobu noonu loolu ñaari laaj bi ñetteel bi ci dafay wax nii euh, dañ wax ne yàlla yow ma xiyaam euh, buy jugé buy àtte jaam yi damaa buñ leen dekkalee euh, naka la di àtte ndax xool bi la doon xool seen xool wala jëf yi doon jëf ndax buy àtte ci xool bi lay àtte xool nit ki wala jëf yu jëf lay àtte waaw mbokk yi ñu ngi sàkku ci jigéen ñi ñu wàññi seen kàddu te déglu dana beneen beneen nit laaj nga xam ne dafa def ci moom benn benn laaj bi la dafa continué mais dañ wax ni yàlla buy àtte jaam yomal qiyaam moom yërmandeem lay jiital ci yërmandeem ci lay àtte jaam ndax loolu lu wér la wala déet kii dafay laaj mooy ban jeexintal la xiyaamul lay mën a def ci xolu jullit maanaam guddi tey ñu jël loolu kon ñu jël loolu bu noppee bu desee ñu kiiwaat bu waxtu bi desee incha allah Euh, laaj bu jëkk bi dafa jëm ci borom bi tabaraka wa taala tere gi nga xam ne tere na ko ñi sopp ab yéefar ànd ak daganal gim daganal jullit bu góor denc koo xam ne jigéen la te bokk ci ahlul kitaab mu yahud yi ak nasaraan yi te mu wax ne koo xam ne dafay takk nit faaw ak mbëggeel am ci digganteem ak moom waaw laaj la boo xam ne bu mat a laaj la waaye ñi nga xam ne ñooy liggéey ci li ñu tudde amalul xulub muy boroom xam-xam yooyu dañuy wax ne diggante cofeel muy mahabba ak mawadda daf cee am yu bokkul comme ni nga xamee ne alxawf muy ragal daf cee am ragal gu bokkul ak gu ragal maanaam dafa am ragal bu dagan ak ragal gu daganut noonu la amee cofeel goo xam ne gu dagan la ak cofeel xam ne gu daganut la cofeel gi nga xam ne moom moo doon bu dagan ci bunt bi mooy cofeel goo xam ne dafa nekk ci diggante doom aadama ak doomu aadama goo xam ne la ko waral ji aggul ca biir maanaam du baatin zahir la cofeel goo xam ne cofeelu zahir la mooy cofeel gi dox diggante nit ki ak jabaram moom la ñuy tudde almahabatu tabiiya mooy goo xam ne nature rek la weesu wukk bëgg gi mu bëgg jabaram bëgg gi mu bëgg doomam googu gu dagan la ak jabar ja nu mu mën a demee ak doom ja nu mu mën a demee waaye bëgg googu nag wërta am contradiction ak bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg gi mu bëgg yàlla loolu moo tax mën naa bëgg yàlla ak mbëggeelam gam yeyoo ba noppi bëgg ay doomam ak i mbëggeel gañ yeyoo te loolu du tax mu nekk shirk fil mahabba ndax kenn ku ne da koo jox la mu yeyoo kii ak mbëggeelug nature la goo xam ne weesuwut bitti bi kële ak mbëggeelug cofeel la goo xam ne moo ko gënal léppam mbëggeel la goo xam ne dem na ba àgg ci jaamu ko te gii mbëggeel mënut a àgg ci jaamu kon loolu mooy li xew mawadda bi nga xam ne moom la ñuy tere mooy mawaddatul kuffaar al mahabbatul qalbiya bëgg leen mbëggeelu xol goo xam ne dana yóbbaale seen lépp ba ca lañ nekk ba bëggaale kéefar ga googu moom mooy dugal jullit bi sax ci kéefar faf su bëggee yéefar bi ba bëggaale kéefar ga kooka musibale ci moom waaye ne ki nga xam ne da ko bëgg ci kaw nature te fekk ma nga sib ga mu nekk bal di def ay pexe sax pour génne ko ci kéefar googu googu mbëggeel doonut goo xam ne guñ tere la faaw ñaari mbir yooyu ñu xàmmee ko beneen bi ci des lim mu wax ne dañ koy tuumaal mbokk yi ci xaw a néew ay teggiin ak di xaw a yàkkamti ci di juumloo lenn ci ndongoy xam-xam yi wala jàngkat yi wala boroom xam-xam yi euh, liñ koy jëkk wax mooy xam ne loolu buñ nee mbokk yi rek day daal di doon ak tooñ bu xaw a yaatu ndax du ñëpp nag maanaam borom bi tabaraka wa dogal na am na ci mbokk yi ñoo xam ne liggéey bi boroom xam-xam yi di liggéey ci jàngale ak ci yar jàpp naa ne man mu ngi feeñ ci ñoom nag bu baax a baax a baax ñu ngi ànd ak seen yar ak seenu teggiin ak seen sunna di jéem a góorgóorlu ci dolli seen xam-xam di jéem a góorgóorlu ci jaamu yàlla di jéem a góorgóorlu ci def lu baax di jéem a góorgóorlu ci téye seeni làmmiñ loolu alhamdulilahi mooy li fi ëpp fépp foo xam ne lu baree nga fa nag lu mel noonu dana am ci seen biir nag li ñu tudde mbellit mooy ñoo xam ne ñoom meluñu noona ndax itam mbir mi noonu rek nag la mën a demee maanaam foo fekk ñu baax da nga fekk ca seen biir loo xam ne safaan bala lu jaxasoo ci seen biir saakub soble da nga koy ubbi da nga koy dajji yow miy jaaykat bi fekk ca soble soo xam ne su baax la fekk ñetti doom ñeenti doom yoo xam ne yooya mën nañoo yàq soble sa ca des waaye nag buñ leen teelee xam buñ leen teelee xam duñ mën a yàq keneen teel a xam googu loolu moo tax mu am solo benn danañ leen jéem biir ndax yàlla baaxe leen lee ñu mën a dellu gannaaw dellusiwaat ci li nga xam ne mooy jub su fekkee tënañ danañ mën a def benn barrage seen diggante ñoom ba suñuy loru ñoom seen bopp ñooy lor waaye duñ wàllaale keneen loolu doon loo xam ne lu am solo la dadi nag loolu moom euh, doonut loo xam ne luy lor ña ñuy wax ci ñoom wax jooju la moom mi koy wax moo ciy gën a loru ci keneen ndax su fekkee ne nit ki man dama jàpp ne boroom xam-xam yu jëkk yi nañ daan def mooy bu ñu amee loo xam ne jàpp nañ ne lii jàpp nañ ne boroom xam-xam dafay juum ndax day am boroom xam-xam kat day juum moom itam ndax du du yonent suñ jàppee ne dafay juum war nañoo mën a ñëw toog ak moom ab jataay ne ko nangam ak nangam ak nangam ji ma déggee ci yow de dama xamul ndax sa làmmiñ ko wax te seetlu woo ko bu dee lu bind mu ne ko danga koo bind te bàyyi woo ko xel waaye man jàpp naa ne njuumte la su toogeek moom ba jóge ci jataay boobee bu ci jógee benn borom xam-xam ba su fekkee borom xam-xam la day dana nangu ne moom moo juum dellu gannaaw ca loola wala su fekkee ne juumul te waajoo ji mbaax képp ko tax a jóg dana ko leeralal loo xam ne bu fa jógee dana xam ne moom moo nekkoon ci njuumte te lu gën a bari nag lu gën a bari nag lu mujj loolu mooy faral di am ndax nag euh, euh, lu baree baree bari nit ki dana dem ba jàpp ne moom li muy wax noonu la ndax gëm gëm gëm lu muy wax waaye nag bu ñu del see teg ko ci misaanu sharia nag ak xam-xam da ngay daal di xam ne yow ndekete yaa nekkoon ci juum moo tax sunu boroom xam-xam yu dun gaaw a wax ne dañoo juum léeg-léeg may jàng ci téere sunu borom xam-xam yu mag yi cheikh Abdul Aziz Ibn Baaz cheikh Ibn Usaymin cheikh Nasiruddin al Albani léeg-léeg nga dem ba gis masala boo xam ne da ngay taxaw nga ne ah lii de ragal naa ne cheikh bi ba wutul daf fee juum. waaye nga continuer di gëstu di gëstu ba mu yàgg nga xam ne yow de ndekete yow yaa juumoon ndokk bi nga ko gaawut a wax soo ko waxoon rek da nga tàbbi ci giraawaal yi moo tax mbir mi dafa di aaja teey lool lool lool boroom xam-xam boo xam ne dafa yàgg ci biir xam bi di yëngu di gëstu tam doon lu ko ñor maanaam foo yeewu ko nga xam ne li ko soxlaal mooy lum xam ba mën koo jëfe kooku bala ngaa taxaw ne kii juum na ci masala war nga ko seetlu bu baax a baax a baax ndax ba watuur rek danga nga juumal sa bopp yow ci sa bopp su dul loolu nag am na ñoo xam ne ñoom dara ñoru leen ci dañuy wër di wax noonu rek di tasaare ñu mel noonu bul sànq sa waxtu ci di toog ak ñoom ak di leen dégloog yu mel noonu ndax ñooñ sànq waxtu lay doon seetuñu dëgg ñu ko jëfe amuñu itam euh, importance boo xam ne bu jar yenn taxawaay yu yàgg yi la ndax ëllëg yowmal xiyaama borom bi tabaraka wa taala xol yi lay xool wala jëf yi lay xool loolu jàll na ci biir waxtaan wi moo di xadisu yonente bi sallallahu alayhi moo di borom bi tabaraka wa day xool seeni xool ak seeni jëf kon ñaar yépp lay xool kon borom bi tabaraka wa du xool seeni seeni melokaan maanaam seeni nataal waaye li muy xool mooy seeni xol ak seeni jëf maanaam jëf ji mënu cee ñàkk waaye xol bi sellit mënu cee ñàkk kon ñaar yooyu doonuñu ñaar yu jàkkaarloo ñi naan xool bi lay xool wala jëf ji waaye ñaar yépp lay boole xool xol bi bu sellee jëf yi ci boppam moo koy wone kon ngir ñu atte ko jëf ji dafay baax dëppoo ak sharia dëppoo ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ba noppi sell ci xol bi maanaam ñaari sart yi tax ñi nangu jëf boo leen seetloo loolu la làmboo muy al ixlaas wal mutaabaa al ixlaas mooy sellal sa borom képp tax ngay jëf loolu kon ca xol ba la koy xoole moom suñu borom xam ne kii yàlla tax muy def waaye jëf ji ñu ngi koy xoole mutaabaa bi ci bitti maanaam jëf ji def ndax dëppoo na ak la yonente ba sallallahu alayhi wa sallam jàngale woonam déet kon ñaar yépp lay xool ndax sax na ne borom bi tabaraka wa taala ëllëg ci yërmandeem lay atte borom bi tabaraka wa ci maandu teem lay atte maanaam ci ak maandu lay atte maandu googu yërmaandee ngi ci biir leneen a ngi ci biir itam maanaam borom bi tabaraka wa taala gafurun rahim la waaye shadidul iqaab la itam maanaam ku am yërmaande la lool ab jéggalekat la waaye ab mbugalekat la itam kon ñooy yooyu melokaan yëpp dafa daje ci sunu borom tabaraka wa taala yooyu yëpp boo leen jëlee ci maandu ga lay delloo mooy kenn ku ci nekk loo yeeyoo loola boo ko seetloo ba ca biir dafay dëppoo ak melokaan yi sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne mooy melokaanu maandu te nag nit ki dana dem ba yeeyoo mbugal sunu borom tabaraka wa taala ci yërmaande mu jéggal ko te ku xool na muy jëf jëflanteeg nit ñi foofu ak li muy jox ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay nit ñoo xam ne da leen di may ñu tàbbi àjjana te fekk yeyoo woon nañ sawara ak lim ba nam bareeg ni ko yonent bi alayhi salatu wasalaam waxee ci ashafaatul kubra da nga yëg ne yërmaade sunu borom tabaraka wa taala foofa mooy la fa gën a yaatu yàlla nu ko sunu borom tabaraka wa taala euh, may bu ëllëgee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne lan yadxula ahadukum aljannata bi amalihi amul kenn ci yéen koo xam ne day dugg àjjana fekk jëfam kese kese moo tax illa an yataxammadani llahu wala ana illa an yataxammadani llahu bi rahmati biñ ne ko wala anta ya rasulallah ba ci yow sax doo dugg àjjana ci sa jëf mu ne déedéet lu dul sunu su sama sunu borom tabaraka wa taala yërëmee loolu xadis la boo xam ne borom xam yi dañ koy firi di wax ne du dugg àjjana ci jëfam maanaam fekk sababus jëf ji dong moo tax ndax jëf ji dong la nga def ba nga juddoo ba keroog nga génn àdduna bu matoon mille ans itam bu matoon junni at it la nga fi jaamu yàlla ci diggante boobu matul lenn kendalul àjjana buñ la buñ la waxoon lenn kendalul àjjana la mu war a jar kon sa junni at yi nga fi dund soo fi dundoon àjjana da nga xam ne matul paasu loolu waaye kon nag ñi jël la dugal la àjjana nga di fa dund ba faaw nag kon xam nga ni yërmaane sunu borom tabaraka wa taala kooku moo la mën a saxal foofa ak nangu gi nga nangu a topp amaa jeexitu naafila guddi ak julli guddi ci xolu jullit waxoon naa ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi xeeti jaamu yàlla yi su sellee luy raxas xol la waaye da ci am jaamu yàlla yoo xam ne woo la maanaam nit ki moo koy defal boppam nga xam ne du farata joo xam ne munu koo bañ a def waaye moo koy tànnal boppam di ko def ngir sellal bakkanam ngir laabal xolam yooyu lépp lu dugg ci buntub tatawwu muy coobarewu foofu la dugg moo xam koor la ci bëccëg moo xam julli li ci guddi moo xam lu baax looy def jëme ko ci ku yeyoo lu baax moo xam ci wàllu alal la moo xam ci wàllu laaye biir la moo xam lu mu mën a doon julli guddi nag doon loo xam ne dafa doon lu spécial maanaam jóg guddi di jaamu yàlla sax laay wax ndax gën naa yaatu guddi gën naa yaatu julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne <laughs> su laylil axir bu jotee maanaam guddi gi buñ ko defee ñetti xaaj xaaj bu mujj bi bu dugg see nee na sunu borom tabaraka wa taala day wàcc ba ci asamaan si gën a jege suuf mu ne kan moom ay ñaan ma may ko kan moom ay laaj ma jox ko kan moom ay jégg lu ma jéggal ko kon waxtoo ngoog xam ne waxtu jaamu yàlla la waxtu ñaan la waxtu dellu ci sa borom tabaraka wa kon guddi gu nekk nag nee na wa dalika fi kulli layla maanaam guddi gu nekk am nga occasion boo xam ne mat na su layli boo xam ne borom bi tabaraka wa taala ubbil na la bunt yi kon di ko nelaw rek muy continuer nga di ko bàyyi muy jàll kooku musiba la ci nit ki di jéem a jóg waxtu woowu di ci julli donte ñaari rakka wala ñeenti rakka yu ànd ak seen nga def ko ci waxtu woowu boo noppee wëlbati ko jàng dara ci alxuraan ba noppee wëlbati ko tàllal say loxo sa sa borom ñaan ko loolu wërta faat jullit bi su ko faatee genn guddi it wërtu ko faat nag guddi yépp kooku occasion la boo xam ne wari su ko bàyyi mu jàll te wóor na ne yii laabal xol ak yii tax nit ki dem ba sell ba boroomam lay jëflenteel loolu ci la bokk ci yi ci gën a dëgër sax ci la bokk ndax kenn ku nekk xam na ne waxtu woowu waxtu njistal fa nga nekk lu gën a bari yow dong yaa fa nekk sa digganteek sa borom la kooku nettaliwut du ko xam mën ngaa toog foo xam ne la nga fa def ak sa borom yow rek yaa ko xam sa digganteeg sa borom nga xëy demaat jaxasoo ci biir nit ñi bu guddee nga delluwaat ca loola sa digganteeg sa borom yàlla na nu borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalal loolu waaw. Euh, wax ni am na ñoo xam ne dañoo am ay façon liggéey liggéey yooyu ñu am daanaka day tax respecté wu julli léeg sax dañuy topp ay fan yu julli ndax topp ndiggu liggéey léegi mu ne ñu mel noonu lan mooy danger bi leen di xaar. Mhm. benn bi dafay wax ni léegi dafa am phénomène boo xam ne dañ koy gis ci télé ci ay émission yoo xam ni dañuy invité ay fàttali wala léeg-léeg dañuy dem seen kër fekk leen démb wala ñoom dañuy fàttali seytaan ñu leen di mhm. euh, filmé jamono ji ñuy faj te ëpp nag ay jigéen la ñuy faj bu leen di faj di leen waxtu ñuy daal ay jéem di yuuxu di wax ay wax bëggoon a xam daal moom dëgg-dëgg lan moo ci taxawaay saa alhamdulilah eh, yaaxe julli wala bàyyi ko ñàkk koo jul ñàkk koo def te fekk liggéey moo tax kooku day wane ne xol bi feebar na feebar bu metti sax na ndax su fekk waxuma la yaaxe julli ci boppam rek ngir ab liggéey kooku feebar la ci xol bi waxuma la ak nag bàyyi julli nga xam ne ni mu ko waxee léeg-léeg da koy bàyyi kooku moom bu gaawut ab xolam ci yoonu àgg ci xasaawatul qalb muy xol bu dee ci la jëm kon jaadu na ci kooku mu delsiwaat bàyyi xel yëg ni fii fi àdduna li fi nekk lépp ci lu ñuy liggéey mu jëm ci àdduna ak loo xam ne lu ñuy dunde la ak yu mel noonu moyen la boo xam ne nit ki daf koo bëgg a jëfandikoo ngir baaxal alaxiraam su fekkee moyen boobu nga xam ne da cee waroon a jaar pour dem alaxira faf moo nekk gàllankooru alaxira bi nag kon kooku boobu liggéey moom àdduna ak li ci biiram jaru ko moo tax léeg-léeg nit di ma laaj rawatina ñi nekk Europe dañuy wax ne léeg-léeg ka ñuy liggéeyal da leen di wax du leen may ñu julli ma ne leen bu ngeen di signé contrat bu mu mën a doon boole ca ne am na waxtu woo xam ne bu jotee danaa jël fukki minute dem julli door a dellusiwaat ci sama liggéey su fekkee nangu na loola alhamdulilahi bindul te liggéey bu ko nanguwul bàyyi ko fa te seeti keneen te xamal ne borom bi tabaraka wa taala du sànq ab jaamam ci sababus diineem loolu mu jullit bi dafa war a am pas-pas boobu yëg ne sànku sa adduna dem ba dara dara mënatu cee baax te fekk sa diine moo tax loolu mënut a nekk su kee rek sooy ba nga vérifié waat sa bopp xool ba xam sa diine fan la ñàkk a selle fan la ñàkk a tegoo ci yoon moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara te fekk yàlla dong dong moo tax yàlla dana la wuutalal lu gën loola kon liggéey bi jaru ko benn nañ nangu liggéey bi tegu ci condition yi sa boroom mi la bind bind boroom liggéey bi liggéey ba tegu ca munu caa tegu bàyyi fa liggéey ba te seeti beneen am naa nag yenn jëfandikoo fajukaay yi nga xam ne moo am léegi ñi wax ne dañuy mocc di faj mocc ci sharia dafa am na ko sharia tege rawatina su fekkee ne góor mooy mocc jigéen amul laal ci sharia amul laal fi nga xam ne moom lañuy waxee waxee darura mën na faa am ci wàllu tibb mooy fajum médecine bi nga xam ne dem na ba àgg ci ni nit ki mënee su ko faj te diisu ko laal waaye mocc ci boppam même góor gi sax boo koy mocc amut amut lallowuñ la lu ñuy jàng di ëf la kon jigéen nag taxul ñuy wax moom moo tax yu mel ne yi ngay gis moom kooku da ngay mën a waat ci yàlla ne lii nga teg sa bët lu xaraam la man am na bis ma yam ci ci lu mel noonu ci tele yàlla xam na ne ku góor kay faj jigéen ja daf koo bokk bokk ne day noot di yuuxu yëf yi coow li mel ne maara day taali xam nga ne loolu kenn ku xam dara ci sharia doo nattable ne loolu xaram la adduna li ci biiram dund dund gu mel noonu jaru ko nit ko faatu sax ñu dem denc ko moo gën taxaw di mooy yàlla ci kaw suuf ci jigéen joo xam ne ju mel noonu allahu mustaan amma nag saboté dara lu jëm ci wàllu diine lépp loo xam ne lu sax ci diine la moo xam lu tuuti la moo xam lu bari la waaye lii sax na jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amut lu ndaw su ko nit ki sabootee te fekk xam na lay àtte ba kooko tàbbi na ci kéefër su ko xamut it nag mën naa bañ a tàbbi ci kéefër waaye def na jëfi kéefër su boobaa nañ ko ko xamal bul fàtte ne ñi yàlla wàcce woon ci ñoom aaya ba wax ne ñii weddi nañ te yàlla du nangu seen ak tuub la ca teg de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak saxaaba yi ñu ni waaj di génn di dem buuk ci xeexu Tabuk kooko saboote saboote saxaaba yi te sun gaa yi de suñ demee ak nangam nangam yi wax ci ñoom ay kàddu borom bi tabaraka wa taala wàcc alquran ne léegi ñii ay yéefar lañ eh, saxaabi bi koy nettali ne gis naa kenn ci ñoom mu topp ci yonente bi sax alayhi wasallam tëye ci teg gi di daw di ko wax ne ko jéggalu nan jéggalu nan jéggalu yonente bi sallallahu ak kafartum ba'da imanikum rek la ko la ko tontu da ngeen di weddi gannaaw boo xam ne da ngeen a gëmoon yàlla weddi ngeen da ngeen a gëmoon yàlla weddi ngeen seenu tuub nangu ko sax faf kon nga xam ne saboote diine ak lu ci jëm kooku musiba la moo xam ne jullit bi day garder làmmiñam ak bëtam ak xolam ci lépp loo xam ne lu jëm ci loolu la su gisee ku junj lu jëm ci loolu mu teel ko yee yëgal ko ne ko yaa ngi taxaw ci bunt kàmb goo xam ne boo ci tàbbee ngir nga muccati dana jafe yàlla na borom bi tabaraka wa taala aar aaral nu sun diine wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain xam naa kayit yi comme niñ ko waxe eh, ah danañ ko bàyyeeg mbokk mi ñeneen ñi ci des it incha allah ku ko soxla du jafe daal bu soobee yàlla. mbokk yi dañu waxoon ni it euh, ñu waroon a ubbee jàng alquran. waaw incha allah.